Thank you. 15. Bayla. waaw. tey ñu ngi lay fekk fii ci ginnaaw commercial ci ginnaaw centre commercial bi fii ci ginnaaw laay tey nag Bayla di def open press woo presse bi waaye xam naa ne daa jékki-jékki rek def ko ndax xam naa ne nekkul loo xamante ne nii da koo moo tax balaa ñuy def dara mu joxe mu nuyoo nit ñi nga xamante nii ñooy seetaan Bayla ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ginnaaw ga ma sant yàlla julli ci maa ngi sant sama ñaari waajur di sant gaay yi fi teew di sant gaay yi fi teew di sant waa ginnaaw raay di sant waa Pikine di sant waa Jokko waa Yaakaar waa Manko tous les ASC maa ngi di sant di leen gërëm di nuyu suma xarit Alaaji Mbaye Dogo di suma doomu ndey di sama xarit di suma lépp barki alxuraanu karim du lek bayima ma. wallahi taala wa deug la. di sante nak da Texas. defal nak bala nga sante nak adina lay setan ñepp a ngi lay setan le 27 di ginaaw suba. lan nga naral ki nga xamanteni ni moy mooy gi 95. guy gi lu nga ko wajal du moom. barki Serigne wa ko lu nga wajal du moom. kon lan moo tax nga jël ko. guy gi am lu ñu boole rek. dama gëjë bu ne nekkoon si blessure ma xam ne ndogal la ma sant yàlla julli si yéen tamit ma xam ne ndogal la quoi. Hmm. moo tax ma jël guy gi. Hmm. mais sama bët. Hmm. fu ñu xool du guy gi barki alxuraanu karim. mais guy gi seen jàkkaarloo. nee na noo mën a def da ngay lan nga koy wax. dëggoo ma ne ko guy gi juum ndax lan. dafa juum barki Serigne Fall. lan la juum rek. non dama xam ne dafa jub lu muy wax dëggul si moom parce que boobu ba tey maa ngi entraînement. nee na moom mu ngi keccop. moo ngi keccop mi ngi ci ginnaawam moom. allah ji may woon sama ginnaaw. daa bu Texas moom sama ginnaaw. alaaji Kona moo sama ginnaaw. Kona borom sala bon sala bëggee moo sama ginnaaw. bébé Ama nekk sama ginnaaw. Aatu nekk sama ginnaaw Cheikh. borom moto yi ma fi am moto bi yëpp nekk sama ginnaaw lan laa tiit la laa ragal si léegi le 27 lan nga ko leeral naar sama boy bi ndax mafia bi waa Texas mafia bi yëpp nekk sama ginnaaw kon lan laay tiit le 27 lan nga ko leeral le 27 du ma ko leeral bëri na muy lan nii mu ngi gis dara barke Serigne Fallou Mbacke mais neen day xeex ak yow parce que dama ko ne guy gi bu ndiyee luy nelaw si man barke Serigne Fallou Mbacke mais yow nee na day xeex ak yow neen da lay dóor nga daanu waxal ak moom luy wax noonu dëggul si moom barke alxuraan alxuraan karim dëggu billaahi wallaahi taalaahi nee na ñi nekk ci ñi nekk ci ginnaawam ak ñi nekk sa ginnaaw bokkuñu man ñi a sama ginnaaw dafa bëri Mbàkke nekk sa ginnaaw Gos Dura nekk sa ginnaaw Ndiogo Gueye nekk sa ginnaaw Alaaji Mbay boole ma ay mafia nekk sama ginnaaw Awa Bale la combat bi combat am la barki alxuraan soo ko nee na ma combat bi la barki dem la ma woo am ku boole ku doy waar barki Serigne Fallou Mbàkke Bamba combat bi dama ko waajal de. le 27 la leen ci nar a xaar. damay entraînement di jooy billahi wala talaay. Mm. Modou Sy ma bay laa Modou Sy. Mm. Modou ma bay laa bul tiit bul ragal. Mm. maa ngi sa ginnaaw barki Serigne Bamba. ay dembe yi. nekk fii si sant commercial bi. nee naa tey lii bu amee moom la. barki Serigne Fallou Mbacke ay dembe yi. yaama leen. non xale yooyu yal na leen yàlla defal jàmm quoi. tey lii bu amee ñoom la. tey booy bi dafa maa bett barki Serigne Fallou Mbacké. ci côté mobilisation lan lañ ci mën a xaar. non mobilisation man eh, man maa tiit de non ginnaaw raay lu ma dara xaar moo tax caaxaan waruma barki Serigne Fallou Mbacké dama osé osé te borom osé gi nii kii mooy borom osé borom c'est darma c'est le bon c'est le bégi darma osé kon lan laay tiit mhm. ah, dinañ ñëw ci yow nga doog a sant ndax dañoo gis Alaaji Mbay ñëw nekk sa ginnaaw comme ni Ketchup nekkee ci ginnaaw guy gi quinze lan ngeen nar vingt 27. waaw salaamaaleykum maa ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp. waaw di kontaan d'abord si waa ginnaaw raay man ginnaaw raay boo ma fi ñëwee dama fi war a ñëw à part Bella fii euh, pharmacie Sëñ Fallou étage bi mu jàkkaarloo foofu la sama yaay dëkkoon même foofu noonu la gaañoo comprendre kon fii man sama féef la comprendre nga waaw di kontaan ci Bella. di kontaan ci waaw di kontaan ci waa waa ginnaaw raay ni ko def di kontaan ci kona bu baax parce que day jàppale béy laa fu kenn nekkul xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga sama waa ji bàmmeel yëpp a tolloo nit jarul xeeb comprendre nga ku ci nekk ci benn pax lañ lay suul kon sa nawle nawloo ko rek quoi mm. kii dama am combat mu bàyyi ay deux mois nekk ko ci man est-ce que ay dégg du ma nangoo entraînement mu may yóbbu di ma wax da par force est-ce que ay dégg dund ak man loo xamante ne mooy waaw sama bis am bu amee ci bët yoo xamante ne da cee xeebu moom sama bis xeebuwul ci bisam ci bëtam kon man dama koy delloo loolu même bu fekkee alaaji partout dans le monde alaaji international alaaji ici pour Beyla parce que Beyla c'est mon ami sandi su nit amul nit kenn ko lekk koy wax ndax lan xamal tax amul ma koy wax moom dafa fekk gaynde guy nelaw mu yee ko Beyla ñi mu war a bëre mooy mbër yi nekk ci kaw mais Ketchup moo nekk ci ginnaaw non Ketchup bokkul. Ketchup man dama ko jiifee jaafaa jëf daan ko moom bi may daan dafa jëf rek est man ak moom man ak moom man ak moom. man ak moom man ak moom final day am te bu final bi amee nga xam ne ci mbokkin safin man maay favori comprendre nga man su ma foowul du ma daanu Ketchup nee na moo ko indi non lamb bàyyi naa ko fooyee kii 95 dañ wax sama combat Ketchup passé na waaw nee na moo ko indi non xamul dama ko indi bu ko indee day daanu ah. yaa ngi dégg ku mën a indi guy quatre day daanu yaa ngi dégg parce que nekk ci ginnaawam léegi léegi fi ma taxaw ak moom nii la ma Thierno ba woo Thierno Ndom Thierno Ndom ba ak Rama Maki léegi lañ ma woo ne ma dinañ jàppale béy laa yaa ngi dégg parce que béy laa dafay exemplaire la mu nekk exemple pour képp kuy bëree non gars yi ma ñëw gars yi xam nga nekk exemple pour képp kuy ali naar mi yëgu open press sama rakk la dama ko fële lañ day tali bees ma ne ko open press booy naa béy laa laa jëm rek mu ne ma yox la ñu taal suñuy a liggéey la gëm comprendre nga ba pare man dama ko ameel dama ko ameel ñaari phase béy laa dafa maa bëgg dafa bëgg sama jabar maam jaara te man maam jaara sama point faible la dama bëgg yaa ngi dégg kuy quatre-vingt-quinze barki Serigne Bamba eh. bu la jàppee nga xam ne yow doo kaani doo si ngox mu lay xool dañ koy bi ah woote nga ba woote wu waaw waaw sama gars yi. waa xaaral ma woote. maa ngi woo suma waa dëkk waa Bayla. di woo waa Sokone. di woo waa Diofior. waa Thialane sama dëkk yaay. man séeréer la fu booy barki Serigne Fallou Mbacké. sama yaay waa Thialane la. waaw Wa Saloum dañuy ñëw wa waa Saloum. Wa waa Fatick sama doomu yaay Duda yi. seen naa fi léegi suma doomu ndey Omre. barki Serigne Bamba di woo wa centre commercial bi yëpp ñoom Galas Mbaye ñoom Momo Fason yaa ngi dégg ñoom Galas ñoom Pa job Tidiane iPhone nee naa soo iPhone bu baax seetil Tidiane. ndax lii ma sañ sama solal. Bamba Tidiane lépp lu ma xewle barki alxuraanu karim moom si. Tidiane iPhone. kenn du moom barki alxuraanu kër yi. di nuyu ay de béy ñoom Yamalène ñoom Khadija ñoom Modou Kengre ñoom Cheikh Four ñoom Sall Cheikh Four nag ñëwagoo ko Modou Kengre nee na dama jënd 5 bolok mosuma am lu mel noonu ma béy laa tiral barke Serigne Fallou Mbar di woo sama booy ndaw yi booy yëpp maa woo parce que yaa moto bi. rendez-vous le a arène nationale. ginnaaw suba la. dox naan ko rambal Amadou Woro. midi la gaa yëpp demee sax. incha